benen bi ci topat di ñew ci jam sa serigne serigne Tuubaa moy wax ne jam ñaar mo koy dox biñ ko laaje lan la sëriñ Malick Basin si moo ko laajoon ne ko jam ndax am na lu ko gën dañu gisuma lu ko gën fi gisuma lu ko gën fañ jëm kon lu way mëna am jam mo ko gën te ministère bi nga yor bokk na ci ministère yi ëpp solo ci Sénégal ndax buñu wax wala économie mënuñ ko am ci fu réew mu amul jam kon jam ñaar ñoo dox kon ma ngi ñaan rek Sénégal ñu woote fi jam te jam rek mo fi xaj bu mo bokk nak ci ñi wax naan mayal Ousmane Sonko jàmm wala mayal ki jàmm dama jàpp ne Ousmane Sonko yàlla moo koy njëkk jàmmal Sénégal yi door koo jàmmal kon loolu du ma ci désiwaat li ma la waxoon ci commission laa lay waxaat président Ousmane Sonko mu dama bëgg nga ci ay mbiram te xam ne mënuloo ko dara te incha allah rabbi moo leen di wut ay garanti laa am beneen bi ci toppaat may ñëw ci kaawu Abdou Silla nga xam ne suñu de parti la dëkk Touba tey ji ñu jàpp ko tëj ko kaso ci lenn lañ ko jàppe ci lenn ci lenn lañ ko jàppe tëj ko kaso mooy ñàkk wuuteeg yéen gis-gis ndax tey ji bu nangu woon li gone ya nekk wa nang heure bi ñu ci sa cabinet wu el mi ngi ànd ak yow di def politique mais proposé ko xaalis mu bañ nga japp ko tëj ko kaso lolu moom mang koy déplorer dila ñaan nga bayiko ko ndax Abdou sel da amuk njabot te jamono ji waxee njaboot ñu dund souffrance bu maga maga maga maga mag kon Abdou sel nang ko bàyyi ndax xol ko ci sa place tay ji benen bi ci topat benen bi ci topat moy ñew ci kaw insécurité bi am Touba am na benn sama naataango député bu dëkk Touba boo xamante ni waa Touba yebaluñ ko ndax ñun ñii la waa Touba yebal jox ñu cent dix mille voix kon kooku placé wut ndax ñaari liste ñoo fa nekkoon def compétition ñu tànn liste bañ bokk wote nañu cent dix mille voix kon ku taxaw ne Touba am na sécurité kooku la xamul la may wax soxna Fatou fàttali na ko léegi Cheikh Mahamadou Mountakha xam naa yëg nga ko ndax am ngay renseignement te dëkk bi am nga ñu dafay nettali lu bëree bëri yabal na ay Baye Fall pour ñu toj marché ba te marché ba tax ñu toj ko moy ñak sécurité ndax di démb dañ fa ray nit kon mang ngi lay wax nga gën gor góorgóorlu ci sécurité Touba ndax def ngeen fa ñaari commissariat bu ndamatu ak bu bu ndaamaatu ak bu guy mind mais lool doyul gën leen ñaan ngeen renforcer ko benen bi ci topat amna ko taxaw fi légui wax ne jolof dañ ko wara def raison ma d'accord ci ndax remplir na critères yépp ñu tax man ko def raison mbuur amna ko ko wax mais man damay réclamer Touba ñu def ko statut spécial man lool lay réclamer ndax buñ ko defee statut spécial yenn intellectuels yi nekk ci télé bi nga xam ne heure bu élection locale ñëwee ñu ne Touba benn lycée fa am respecté wul ñu toog di saagal sëñ bi di saaga wàkk Touba loolu dina tax statut spécial mën koo dindi kon bu plénière yi jeexee dañ beneen bi ci toppaat mooy ñëw ci Touba nombre d'électeurs yi ak la yeewoo ci population dafa tuuti lool ndax dëkk boo xamante ni près de 3 millions d'habitants ñoo ngi fay yeewoo mënuñoo am 200 ministre de l'intérieur sama mbokkum jolo jolo bi fi nekkoon moo tax tey ji mënuñu am nombre électeurs yi def na ay transfert électeurs li ngeen def ko feneen feneen loolu yow mi nga xamante ni da ngay sa bopp taalibe dëkk Touba jàpp war nga cee gën a góorgóor ndax Touba ya fa nekk ay citoyen sénégalais lañ am droit voté di la xamal ne liñ la dénk ñun buñ sañu nga réussir ni ma la ko waxee woon man ak yow ñoo boo jógee ci